bëgg naa la bëgg ma la loolu jarul coow kay juboom joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Guigui Diallo joyeux anniversaire est tey fii nga génn. ci sëñ Abdallah Diouf laa jaar mu def ma nii. macha allah. ni ma nag demal ca am soo bitik nga solal fa gi gi am soo bitik ma ca lan benn siis. Hmm? xam nga ko. est-ce que. da yaa xam li ma bëgg. barki rasulaay. waaye yow Diop toogal toogal ma laa la benn affaire. ah Diop Diop noo xamante ne la sama anniversaire yow. may dabar lëjal ma rek anniversaire ba bu la fa kenn jiitu. may espionné de. Guigui li ma def baax na. tey xoolal dama la dama am envie lalal la rek macha allah. Guigui doo dimbali sa sa gémmañ gi nga tegal ma ko ci sama loxo bi rek. un ah. <laughs> may naa la ko nag tey rek la nag bul ëppal nag ah bëgg nga lu yomb trop tey moom dama lay may pra gratis toogal ma servir la nga lekk naan ba suur et puis tu rentres chez toi. Guigui mën naa laa laaj benn affaire rek. Hmm. Guigui man dama laa bëgg sama biir xol. maanaam dama laa nopp nopp billaahi ah, <laughs> am nga ci droit de parce que jigéen laa ah yow tu vois <laughs> ah mbaa kenn jiituuma moom dafa mettee su guddi gi neen salaw fay xew xale bi la yaaw yow yaa ma tere yaa tere nelaw bu guddi ne salaw oh waaw waay bul ma bul ma jooy loo ma bul ma bul ma jooy gigi joyeux anniversaire baax na nga naan merci happy birthday to you ah, ah. Happy birthday to you. noonu yàlwaan ka doom sarax. Happy birthday to you. Gigi Store. Happy birthday to you. neex na ba pare. ku baax doo moytu bala ngaa. Euh, bi dama la koy ñaan ci jimmi yàlla. na nga fair play. na nga fair play kat. kay yaa ngi muy man. loolu sama yónni wu ci man. Happy birthday to you. lii rek ci père plate maa moom lii. joyeux anniversaire. ah anniversaire d'aujourd'hui là se passe bien. Euh, Gigi nanu ko def goo gis nañu ko waxta du ko jiitu. yaa konkoo. Gigi. billahi je t'aime. Ah. mais. dara jëy jëy yaa ne Fall je t'aime. Ah. Gigi man yow laa bëgg. mu ma am lu sut mu am lu gën. Eh, yow mën nga maa bàyyi wala waaw mais bàyyi ma. mais non eh. eh, oh, eh ma da waat bàyyi nag. ma tàccuwaat nga mel ni borom ñaari tur yooyu. nag ma laal te. bu ma tàccuwaat de. na ma sa loxo laal. ubal ñam yi. gi gi yaa ngi di tuuf li rek. waaw mënoon na bàyyi yow tamit. gi gi yaa yaa nekk. xaj yàlla mi dërëtiwul. ak mbëggeel gu sax dàkk ma am sama diggante man ak yow. bu ma la tëddee yow lay xalaat yow lay am waaw wuyu ma jarul ay piis ba j'ai tout compris xolal va t'asseoir man dama lay servir nga lekk ba suur. Ah, yaa ngi dégg li ma toog. lenn li sax dafa ñaaw lenn dafa ñaaw nag sax te jekkul nag nag baadoo la pire lay mel. jërëjëf yow lu la mitti. lenn nag dina la ko ci baadoo baaraloo rek ngay mbaaral muy taw nga mbaaral ko mais foog mu yërnu xool ba xam siwét na wala siwéte fa lay siwéte xam nga lu ma neex ci yow xool ci yow nga xam ne baadolo yow doo baadolo sax bala njaay fen nga bal la ilaha illa allah kaay nag ma wax la li jaruma jaay ma ne ku la ñawal da laa dimbali xasaw koy bëgg rek yére yu bon kan yow fi ne ku la ñawal rek da laa dimbali yow mi man mii waaw yaa raw ngunu ganaar yow bu nu soxor bu nu am xaluk ki ñaam sim li la ah. métti ma teguma la ko mais ak gi yaa ngi dégg marché bi bitig yi nu dajji bitig yi nu dajji. waaw y a une cliente qui parlait de ça. sàcc fa dal li jigéen. Ah. mbaa du yaay sàcc bi. ay waay sëñ bi. ku moom xar mi nga bàyyi buum bi. yow lu la metti yaay sàcc bi yow. li la métti teguma la ko. kii mën la bëgg. bu ko waxee mën la bëgg bu ko waxul mën la bëgg. waaw ah, xam nga lu ma bëgg. ma wax di dakk yow yaa ma dakk la samay wax. man duma ma tontoon teg yow. sëñ bi xam nga lu ma lay xamal. dafoo gën a jàpp la pàntaŋul la bu dee ak góor nga ci yow làmm nga sa bopp dëj góor ñëw boo ma ko waxatee boo ma waxatee lool man toj sa lu bon yow. bisimilah dégg nga li ma la wax. bisimilah gis nga nii nga may mel nii nga mel kuy mbëkk bal di ma ko jox. waaw bu ma la jotoon ba tey koloj naa sa bët bi. yow bu ma la defoon nii doo ma dóor. man ku ma xeexal koloj naa la man. ah koloj jëfi tapet yooyu. eh eh eh eh ñu fii. eh ma eh. ñu ngi taxaw xool nag. Eh, noppi bëgguma ko dóor ma dal sa kaw. Eh, yéen xanaa tey du sama anniversaire wala ñëw leen pour ñu bëggee. ah kay kon dama bëgg ngeen ne taj tey moom bëgguma wax. ci bu lay tey dama bëgg di sourire rek di wane sama 52 ans. la ilaha illallah wax dégg ngeen ma. neex na leen wala neexu leen. fàtte naa ne sax duma morom. kon noppi leen. waaye man rek ci koloj. man rek ci koloj. asalaamaaleykum salaam. Ah, kilifa yegg si na kilifa yegg si na. Ah, soxna Guigui. oui chef de quartier woo ma. non jamais de la vie. sëñ bi na ngeen def waay. ci jàmm. alhamdulilah. yal na yàlla saafara yëpp moo tax tey daal ma ne naa fi jaar. waaw naa jaar lu rafet macha allah def nga lu waa kii du sama waajee. man la lan la woon. man la lan yaa ñàkk jom. yaa ma gën a ñàkk jom yow. yow boo amoon jom sa tànk dootul tegu fii. yow yaa mun yow yaa mun fii. sim yow yaa def yëpp. yow yaa mun fii. kii xam nga li mu def fii. sàcc bu mag a ngi. ay daal la mu di indi. ah ay indi gauche ak sama tur la mbuboo turu chef de quartier ñëw bëggoon sàcc juróom benn junni gi. xam nga lu ma boole ak yow. linki moom a boole ak yow. la ma la wóoroon sama diggante ma la yow jox na ko. on puisse tout nga la ma gën a doon sàcc yow. chef chef de quartier wuyu dafa ñaaw sax wuyu eh, jeex na tey moom c'est un jour spécial aujourd'hui c'est mon anniversaire. tout le monde on va rigoler bugguma fi xuloo bugguma fi xeex fàtteel kii. naa ne wu ko ndox fenn tey la. tey la sama anniversaire. xoolal rek li li li tubaab naan conscience kii. coïncidence waaw moo ne nii moo ne nii daal. dama la parelul mbir. kon de xanaa dañ ko ci boole rek <laughs> yàlla daal mu ne tànn ni bësam rek kii seenu or la kaki jaarom téel bu ragal maa la ko jox. man aujourd'hui mon mon anniversaire là se passe bien de. voilà yaa ngi moom yaa ngi moom yaa ngi moom nga os ak jàmm nga os ak jàmm. xoolal ça là je vais mettre ça tout de suite. Ah. Eh, anniversaire bi teel naa neex ah, franchement. tey moom ay cadeau rek. léegi nag wax ji wax ji gigi. Mhm. ku baax. mais tout table yow da nga maa mun la bay. table ji ngay lonk la. yow yaa ko moom. nga mel ni xulool. waaye xam nga yow. Eh, eh, yow bii la. si man la man laa wax. waa chef de quartier bàyyi sama bës sax ko. lii rek bàyyi noonu mel ni wun. Eh, dañ koy def cadeau anniversaire bi nga wax. waaw waaye nag day day day jëriñ la leen de la taxul samay tànk ñëw. lan la noonu. may gu njëkk. may gu njëkk. maa la wax. si mbaax bàyyi table ji ngay wéeru. bàyyi table ji ngay wéeru. may bu njëkk la. yow toogal moom mel ni arbitre de tous. sim. mel ni ku dëppoo dara. sim. mënoo ci li nga yor dara. am na ci leneen am na loo xam ne moom yàq ci yàq déedéet chef de quartier la. ah yàq am na loo xam ne. yàq déedéet chef de quartier la. jigéen naka fii nag. ça va alhamdulilah ñoo rek waaw macha allah rek maa ngi toog ak imam. di nga wax seen mbir. ndeysaan hmm. ndeysaan di yokk ñaan. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. man faalewuma la man salaam asalaamualeykum. maaleykum salaam. waaleykum salaam. na ngeen def. ça va alhamdulilah. ñu ngi la. sama va alhamdulilah. naka garab bi mbaa mi ngi dox. sant bu baax bu ah, yàlla na yàlla xeeb doole. amiin amiin amiin mel ni ku ci bopp bi rek bu baax. man xam nga dangay sama sœur. Mhm. sama jëkkër it di sa càmmiñ ndax démarche yi bi ngeen koy def dara ump ma ci mais dafa am ay rumeur yu sew yu may dégg rumeur waaw xam nga muy ñëw di fréquenter fii man dérangé wu ma amul problème mais la ca toppama metti maanaam xale jigéen yi mu joxante rendez-vous ci gargot bi def ko lieu de rencontre i dans ma gargote ci gargote bii je n'ai jamais vu ça bu baax loolu mel ni xam nga lu ma bëgg nga wax ma bañ maa nëbb sama jëkkër mi ngi ci def mi ngi ci gargot bi wala nekku fi soxna si ma ni picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf xel maa ngi ci suuf xel maa ngi ci yéen ñaar moom yow ak sa weex bi nga may saf bekku suukar wax day rafet yow nga may saf paketu bu la li ngeen di wax dara laa ci xamul jërëjëf yow xam nga lu ma bëgg nga xam ko li ci sa bii ceen gii sa sama bos la ah waaw mani foo gis Romero rek <laughs> Juliette xam nga ne Juliette gi ci biir voilà pour muy gàtt maa bëgg nga tekk sama ceen teg ko fii ndax ceen gi ba ma koy jël di ko dénk sama jëkkër pour lu wóor a taxoon ndekete boobu ah ceen gi am na fu mu jëm waaye sàcc bu dul raw jarta yàq nelaw na gaaw mhm. soxna si nga baal ma li nga doon wax sànq dama koy jot a dégg bu baax kan mooy sa borom kër chef de quartier bi ah. mooy sama borom kër bii ci koñ bi ma ne maay ñetteelam man maay commandant de booram ah. waaw accum ah. <laughs> way woowu mba Kumba Gawlo Seck way mi ngi sam mën nga ko Kumba Gawlo li mu way dafa bari benn rek ma ci ñor muy ban xam amuy ban voilà xam nga ma yër li ma yër mel. ma yër li boobu la ma ci lekk ci ay kado dafa bari. Ah, léegi nag yëral li nga yor yëral li nga yor yëral yëral yëral sax gën na la waaw ay li allahu akbar kabiran. Eh, wal bu kon daal dañ laa daajal kaaf fi nga may saf ginaar gu périmé. nii. lenn de dinaa la ko xamal. Mhm. jéeg laa boo xamante ne. Mm. kum mën nañ maa dëkk mais daan ma moo yombut. maa la ko wax li ngay def ak sa. boobu sax bi ngay nuroo ku soqi ko ci toolu batañse. yow de boo ma fekkee kër ga kuntum bi la zaal mii la. Eh. dana la doyati tama ci bu. sa bopp kuntum la saali mii la. la lay ñuul sa bëgg a tëdd yow. saali mii xam nga kan waaye ci kuntum gi lan la ñuul.